Moussa Sow, le responsable national de la convergence des jeunesses républicaines, appelé COGER. Euh, nous étions venus ici ce soir pour faire un grand rassemblement dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yakaar dans sa france jeune. Nous nous sommes réunis. Je remercie tous les camarades parce que le siège était plein à craquer et c'était pour lancer un message. Un message pour dire à la jeunesse de se tenir prêt parce que nous devons tout le temps, chaque jour que je fais, matin, midi, soir, surveiller cette opposition et défendre le président de la République. Maintenant, lancer un message euh, d'unité à l'endroit de tous les jeunes de la coalition Benno Bokk Yakaar, mais également euh, donner un rendez-vous la semaine prochaine. Le mercredi prochain, nous comptons mobiliser un grand rassemblement au niveau de la place de la Nation pour montrer à l'opposition que, en termes de mobilisation, nous leur dans le pied, le, le, pion. Et nous sommes plus forts que euh, même sur le terrain. C'était ça, en tout cas, ce qui nous a permis ce matin, euh, ce soir, de mobiliser tout ce beau monde, tous les jeunes, euh, pour passer un message. Mais également, euh, je remercie le président de la République, celui qui est en train de travailler dans ce pays. et nous sommes en phase avec la liste Benno Bokk Yaakaar et nous voulons lui donner une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Vous vouliez faire un contre-rassemblement euh, pour montrer votre capacité de mobilisation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a eu l'impression que vous n'avez pas pu canaliser ou bien que la permanence n'a toute la mobilisation. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez vu même de vos propres yeux qu'il y avait beaucoup de jeunes. En réalité, le siège était très petit, était exigu pour accueillir tout ce beau monde. C'est la raison pour laquelle il y a eu quelques déraillements, quelques débordements. Et là, je pense que c'est propre à la politique. Ce que nous lançons, c'est véritablement appelé à l'union des cœurs pour que le président de la République puisse avoir une majorité confortable à l'Assemblée nationale. jërëjëf jërëjëf maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm euh, ci ñëw bi ngeen ñëw fekkee suñu ndaje bi suñu ndaje bi ñun li taxoon ñu def ko mooy dajale ndaw Benno Bokk Yaakaar yëpp PS AFP APR LDR Yeesal tous les gens qui travaillent avec le président Macky Sall pour wan opposition bi ne nous sommes véritablement mobilisés nous sommes prêts à euh, faire face à l'opposition loolu moo waraloon ndaje bi léegi Euh, message bi may lancé mooy message unité ñu booloo nekk benn pour gën a taqee gën a aay ci liggéey bi ngir jàppale bu baax le président Macky parce que nag le président Macky Sall c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé il mérite d'être soutenu ñun suñu posture mooy ñu jàppale ko te dinañ ko jàppale ba mu am une majorité bu bu bu bu ama am solo ci assemblée nationale ngir mën a eggale projet yi nga xamante ne sumb noo ko ci mim réew maintenant nag dañoo bëggoon semaine prochaine le mercredi prochain organiser benn rassemblement bu maaga maaga mag pour won opposition bi ne effectivement ñun ñoo leen dàq mobiliser ñoo leen gën a bari mbooloo pour que rassurer li nga xamante ne toute la jeunesse de la mouvance présidentielle ne élection yi yii dañ ko war a gagner te dañ koy gagner pour le président Macky place de la nation lañ ko bëgg a defee ñoo ngi ciy woo ñëpp ñoo ngi ciy woo toute la jeunesse Benno Bokk Yaakaar te di woote à l'unité parce que le président ne mérite pas certains agissements c'est ça. ñu gis ñu gis que ne tey rassemblement bi xaw na bëri ay euh, jaxasoo lan moo xew daw yi ñoo mënul xej fii wala c'est un problème waaw loolu lu am solo la parce que gis ngeen yéen seen yéen seen wàllu bopp yéen a ko gisal seen bopp siège bi ci boppam. s'est euh, montré très petit pour accueillir tout ce beau moon loolo tax nag bu fekkente ne siège bi réyul ñu bëgg fee accueillir jeunesse Benno Bokk Yaakaar gi yëpp du ñàkk parfois ay débordement gëm naa ne c'est un excès d'engagement c'est quelque chose loo xamante ne ñëpp bëgg a jàppale président Macky Sall pour mu am majorité confortable fële ca assemblée nationale